ñu fas yéene waxtaan ak yéen tur yàlla wi nga xam ne mooy Latif di tur yàlla bu sell bu màgg bu bëree bëri ay njariñ yoo xam ne defan nañ ci vidéo doon ci leeral istixraaj bi maanaam ak tur yim jàpp ak jàpp ak li tax Latif doy waar joxoon ci exemple ni Latif adat bi cent vingt neuf la Muxti itam moo jàpp cent vingt neuf am na nag ñu wax ne ñaar yooyu mënuñu mënuñoo tàqale ko bi mooy tax ko di bi jox bu bëccëg waaye ala kulli haal loolu tax ñoo jóg mafasan itam cent vingt neuf la mooy inna lil muttaqin mafaasan mu alxuraan la diinu dunya diine ak addina euh, bokk bale itam moom cent vingt neuf la taalibu matlub bokk bale cent vingt neuf jox az zaman firi jamono moom it soo ko bale cent vingt la lay jox xindahu nga xam ne moom it alxuraan la cent vingt neuf la badan muy wérgi yaram moom it cent vingt la yut ximu bi firi dana lele moom it cent vingt la حروف الفاتحة سامي النب لكون سامي النب عدد بباركة باركة لا لو خمني لم جاب بين لول لول لول لول léegi nag latif itam bokk na ci lim doy waar mooy boo xoolee dafa composé ñetti ñetti araf yu am solo lool ci wàllu adat ku xam xilmu adat muy arafu ma yu ak arafi naar yu ak arafi turaab yu ñetti façon araf yooyu ñoo composé tur yàlla bii ñuy wax latifo kon latifu lu ama am solo la lu barke la loo xam ne tey fas yéene nañ ci jox secret bo xamne kep ko jëfandiko bëgg ko ci wàllu wërsëg wàllu ubbeeku wàllu xaalis naataange su ko jëfandiko ni ñu ko waxe bu neexee yalla suñu borom dina ma ubbeeku bu baax baax ci walu wërsëgam insha allahu taala lepp lu mu rek suñu borom man na ko jàppandalal mu amé ko nama ko bëggee ci kàttanu yàlla li nag secret la rek waaw ñi leen koy jox fas yéene leen koo baaxe di wax ne ngeen bu ngeen ko jëlee itam ngay ñaanal ñu te képp ku abonné gul ku ne nga abonné incha allahu taala ndax lépp lu ñu dugal ngir laay biir leen ko ngeen mën cee jot incha allah istimaal bi nag nii ku man da am yére yu weex tàll yu set wecc ba laal parfum bi ñoom misk nga wut cent vingt-neuf teg ko ci sa kanam dal di julli ñeenti rakka nafila jaamu ko yàlla ñeenti rakka yi rakka bu ci ne nga def ci faatixa benn yoon ak alam nasra juróom-ñeenti yoon ñaari rakk yooyu def sëlmal ba ñeenti rakk yi mat boo paree nga jël doomu gura yi benn doomu gura bu ne nga bind ci latiifu benn yoon rek nga koy bind ci doomu guro bu ne ba cent vingt neuf doomu gura yëpp mat bu paree nag nga jël cent vingt neuf doomu gura yi teg ko ci sa kanam jël sa kurus benn doomu gura bu ne nga werd ci yaa latiifu yaa latiifu cent vingt neuf benn doomu guro bu ne cent vingt-neuf latifu nga ci moom nga ci werda bu ko bu ko defee ba pare nga jël ko def ko ci ndab def ko saafara guro yooyu nag saafara bu moom ngay sangoo boo ko fanaanaree ba mbind mi wàcc nga bàyyi guro yi ci biir da ci faral di tàng di sango ba juróom-ñaari fan yi mat gannaaw bu juróom-ñaari fan yi matee nag eh, nga dal di génne guro gi saraxe ko incha allahu taala ko def danga ubbeek ubbeek gu yéeme ci kàttanu yàlla incha allah uh,